asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak seen kàddu ci li ñuy wooyee actualité de la semaine nañu leen koy jagleel nanga nga sa weekend bu nekk ma comme ni koy defee rek ma ci ànd ak ki nga xam ni moo di Mati Sarr ñaa Mati Sarr nga def. Euh, maa ngi fi Binta maa ngi lay nuyu di itam suñu bépp mbokku internet yi ni bàyyi xel jamono ji ci biir seen kàddu point sn. Mati Sara xam naa sax ñu ngi koy defee saa su ne rek maa ngi dellu si yow ci deuxième partie bi waaye laataa ñu ñëw ci yow dañuy jàll li nga xam ne moo di information yi gën a fës seen kàddu ci ay bi si njëkk na nga mooy li nga xam ne mooy li ñuy woy stigmatisation maanaam ñi nga xam ne dañuy am wàllu feebaru mu coronavirus waaye bu ñu génnee dañ leen koy xoolee ci biir koñ yi ñu dëkk waaye tam di leen ci daw ki ñu amal taxaw seetlu bi nag moo di Aminata Cissé. ñenn ci askan wi jot nañoo joxe seen xalaat ci li nga xamante ni moom moo di feebar bi di coronavirus. coronavirus waaye itam ci tolluwaayu réew mi ñu jàpp ni feebar bi lu am la ba tax na dañu war a maytu bu baax a baax. ñu képp koo xam ne nee na amul danga xamul waaye ku laaj euh, tubaab yi wala ngay seetaan euh, télé tubaab yi ak gis li mu def dëkk yi nga xam ne ñoo ñu ëpp doole di nga xam ne lool lu am la c'est-à-dire nag moo baaxoo leen lu mu tegul bëtam pour moom amul. loolu moom baaxu sénégalais la moom moom lu mu tegul bëtam moom mën na ko weddi sénégalais mom li leen gëna ki moy mooy da leena a yomb mais da ngay wet boy weddi tam da nga fay tek dara mais lo xam nang kay nga te mëno fa tek dara c'est pas l'appel ka nga kay bi mom lu am la feebar lu yalla wacc la wa di li nga xam mom moom la ñu yi sant li jaadu moy nañu def loolu parce que Sénégal moy réew mo xamni bi ñepp lu yëngu ñepp am nañ ci xam-xam te nak c'est pas normal li feebar la nañ dem ci médecin yi lu ñu digal ñu def loola affaire diine la nañ dem ci sëriñ si lu ñu digal ñu def loola affaire sport la nañ dem ci sportif bi lu ñu digal ñu def loola waaye yow mënoon ni lu yëngu rek nga ni ñëpp xam nañ ko loolu man Sénégal rek laa ko gis vraiment ah, bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci ñoom maytu lu baax la waaye itam waruñoo stigmatiser maanaam di singale ñi nga xamante ni ñoom ñoo jotee amee bi la feebar non ñooñu waruñu daw ñu jël feebar bi parce que feebar bi comme li ma wax la rek au début yàlla moo ko fi xam ni bu lay dal doo ko gis yaa ngi dégg kon bu dalee doomu aadama boo xam ne danga koo xam léegi da koy ñaanal rek pour yàlla suñu borom teggil ko ko te yow nga xam ni nit nga te doomu aadama nga te li la dal tegoo ko sa bopp yàlla moo la ko teg képp ku mu dal dañ koy ñaanal rek pour mu jeex ci moom tàkk man ñi ku nekk delluwaat say activité ginnaaw sortie bi nga xamante ni kii di professeur Moussa Seydi amal na ko ci week-end bi passé ngir ñu bàyyi li nga xamante ni moom moo di stigmatisation bi jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee jàngoro yu coronavirus askan wi tamit wax nañ li ñu mel di xamle ni tamit ñu koy def teguñu ko fenn. ginnaaw taxaw seetlu boobu loolu nga xam ni kii di Aminata Cissé amaloon nañu ko dem nañ fële nga xam ni moo di ca village artisanal boo nekkee fële ca Soumbédioune ñoom nag nga xam ne ñu seen kàddu demoon nañ waxtaan ak ñi nga xam nga xam ne di feebaru coronavirus bi bu mu duggee Sénégal ba léegi yan problème lañ ci am ndax seen liggéey mi ngi avancé comme nu doon demee ki ñu am reportage moo di Mati Sarr Niang bokk ci li nga xamante ni mooy mandargal Sénégal rawatina capitalam bi village artisanal de Soumbédioune boo fi dal di ñëwee li leen njëkk a teertu mooy œuvre d'art yi nga fiy fekk lu ci mel ni statue wala vax aar yi ba ci sax lu jëm ci li nga nga xam ni moom moo nekk yett bi nga fi eh, daal di gis jëm ci ay mala wala ay doomi aadama waaye nag si jamono ji eh, ginnaaw bi fi mbas mi duggee eh, booba ak léegi mu tax ñu tëj hôtel yi ak boole kook dal di tëj frontières yi ba tax na touriste yi kenn ñëwatul fii si village artisanal bu Soumbédioune bi. parce que ñun fii euh, daanaka boo xoolee suñu liggéey ñun li ñu liggéey lépp c'est pour les touristes aar bi ñuy liggéey ci la nekk yàgg nañ ci. ñi ci bëri fii ci la ñuy am njaboot di ci dundal seen njaboot mais depuis bi affaire bi ñëwee ba léegi gisuñu touriste gisuñu dara moment bi sax ngay door a gis bi ñu ubbee léegi yoon bi ngay door a gis dimanche beeg yooyu ak vingt ak couvre-feu 23 heures bi ngay door a gis gars yi door a mun a ñëw ndànk pour ñibbi bi daanaka bañ a jafe ci ñoom mais actuellement pour nga ñëw fi sax pour nga jële fi sa paas bi ngay ñibbee jafe day jafe moom mi lee sax bi biñ ko tàllalee sunu micro mu ni xam la ni euh, liggéey bi euh, boobaak léegi moom it dafa daal di taxaw euh, tey itam amul benn autorité boo xam ne ñëw na fii sax ngir nemmeeku leen wa ilaa mu masawu leen. actuellement wax dëgg yàlla su ma la nee artisan yi nekk fii kontaan nañu kenn kontaanul actuellement ñëpp a sonn sax la ñuy demee rek bu ñu mënee jàppale les artisans jàppale artisans yi artisans yi da ngay génn ci biti gis partout fu nekk da ngay gis. mais dañuy dem ba day gis ku ñëw fii gàddu sa bagage dem kër marchand di ko fa jaay mais doo fa jëlee dara mooy la fan laa koy jaayee fan laa koy yóbbu nga yenuwaat indi ñëw teg fi wala nga teg sa kër soo amee moyen ñëw fii qu'est-ce dañuy jàppale ngir yàlla ndax ñu mun a dem fu mu toll nii artisan yi sonn nañu amuñu leneen lu dul lii liggéey teg fii yëpp mi ngi nii ñëw exposé fii yu am na yoo xam ne sax munuñu ko finir dugal ci biir place bi maal yi nga gis ni yeb marchandise la mais mënuñu ko jaay ko koy jaay actuellement da ngay tok di xol ñep da ngay wacc dem sa kër pour nga joxe dépasse problème la te ñi fi nek ñep ko fi gis mu taxaw borom kër la man maa ngi fi depuis 7 h xol su meeku sax def mu léegi la sumi dalé ni xaarama jog japp julli ngor gi nak bu ñu muñe jappalé ak ministre artisan yi ñu jappalé ñu mo gën parce que actuellement on est fatigué feebar bi di Covid 19 wala coronavirus bu mu duggee ci Sénégal ak léegi daanaka secteur d'activité yu bëri yëpp dafa dal di taxaw ñu bëri seen liggéey demeetul noonu te village bi ñuy woowee village artisanat bu Soumbédioune moom it mucc si waaye nag xel mën naa dal ci artisanat yi ginnaaw bu seen président des chambres de métier daal di xam leen ni fii ay fan yu néew dina mën a jot ci ndimbal bi nga xam ni état bi dina leen ko jébbal. Mati ñu lay jaajëfal l'ex-président de la République que maître Abdoulaye Wade mom nañu ni dafa mémoire information nga xamné confrère le président de la République dafa mel mom woyé confinement bi daf ci profito bu baax ngir amal ci ay écriture li mémoire mémoire disponible soupe. ñi nga xam ne ñoo di sénégalais yi nekk ci palage yi di entraîner ak di amal yeneen yi activité ñoom nag dañoo lank ni duñoo wàcc euh, plage yooyu le ba tax na ñi nga xam ne moo di démb fële ca plage yu Géejawaay jeunes ya fa nekkoon dañu amoon ay jàmmaarloo ak ñi nga xam ni ñoo di waaye takkadeer yi dem nañ sax ba mu jigi affaire bi xawoon ëpp loxo waaye dañoo dem ba ci yegg sa jeunes yooyu la nga xam ni ñoo fa nekkoon ñu mel ñi dañoo def prise de conscience daal di ñibbi seeni kër bu ñu jugee ci loolu fële nga xam ne moo di ca ki nga le ministre euh, Mansour Faye le ministre développement communautaire l'équité sociale et territoriale amaloon na fa li nga xam ni nag moo distribution des kits alimentaires Mom nag li mu xam le moo di fële nga xam ne moo di ca Parcelles Assainies ci communes yi nga xam ni mooy ëpp jot li nga xam ni koy ci kits alimentaires ñu bàyyi ngeen teewlu ay kàddu. tey ci parcelle, département de Dakar région de Dakar parcelle Assainies bo département de Dakar moy ñaarelu commune bu commune la commune de Grand Yoff Grand Yoff, moins plus de 17 000 ménages. Parcelle Asseni, et madame 12 889 ménages. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez que vous avez que vous pouvez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez que vous les autorités de l'administration territoriale qui ci parcelle y a le sous-préfet En les autorités communales madame le maire le maire Moussa Sy tey toog naa ak moom léegi mun une fii ci parcelle déggul une contestation une contestation amul kenn contestation wara a wala wax dara donc loolu lu ko waral moy liggéey bi jaar na yoon parce que bu liggéey bi jaara yoon c'est parce que maire bi manam mom nak ay délégué de quartier nga xam ne nekk dans les sous-comités de ciblage def nañ liggéey bu am solo ci walu transparence mu leer nañu parce que dëkk bi mo doon nek di liggéeyal askan bi di def li lu lëm donc damay vraiment yëkkati kaddu te yëkkati ay ngërëm teg ci ndoddu Moussa si ci liggéey bii nga xam ni def nañ ko dund gii ñi gis ni ci soixante neuf milliards de francs CFA loolu moo tax tey ngeen gis askan bu nekk mën a am ñaari sàkku ceeb bu cinquante kilos bu cent kilogrammes bu ceeb mu am fukki kilogramme pâte alimentaire moo xam ni vermicelle la moo xam ni macaroni la wala spaghetti fukki kilogramme suukar fukki lis jëwlin ak ay pëlnganu saabu lu toll ci pëlnganu saabu ak juróom-ñett loolu bu nga xaymaa ngi toll ci fukki junne ak ñett ak ñaar téeméer war a jublu ci askan wi war naa mën a mat ñaari weeru dund lu mu néew néew néew donc lii lu rëy la boo ko doon seet ci Afrique amul benn dëkk ci Afrique bu def lu mel nii <coughs> def naa ñaar yu xawtane am na dëkk bu ñuy wax Côte d'Ivoire mi ngi visé lu toll cent soixante-sept mille foyers bëriwul boo jëlee dëkk bu mel ne Togo ñi mu jox ci ay bénéficiaires ay individus bëriwul quatre cent cinquante mille individus la jox échelle yi bokk ñu waaye président Macky Sall yi yëwoon ak indi maanaam saafara ci askanu ci askanam loolu ko tax a loolu moo tax mu indi lii keneen ki nga xam ni wax na ci wàllum aide alimentaire yooyu le mi ngi nekk Moustapha si Lo moom nag lu mu xamle mooy ki nga xam ne moo di ministre bi yore wàll woowu la dafa war a indi ay leeral leeral yi nag da da koy jëmle ci li nga xam ni moo di wàllum campagne boobu la na ñu def ba ñu nga xam ñoom lañ jox wàllum euh, ceeb yi ak tamit transport bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yor naka lañ leen def ba li nga xam ni moo di ceeb yeeg transport boobu la jaar ci yoon ñu bàyyi leen ngeen déglu ko. ma intérieur bu téré ab député mu commerce mba mu am ab société xawmako té ma ngi ci 4e législature mais lima ma d'accordul mooy marché ay milliards yo xamné ñeneen mën nañ ko def nga jël ben Moustapha Cissé Lo nekkul ca corporation bobu amu ci auto camion 30 tonnes 40 tonnes gros porteur ñoy seuf ceeb ak i nga fab marché bobu jox koko il am ay de millions te dang koy presque khalis liquide mani lolou rafet ko député buñ ko bëgg jox war nga ni dette nañ sét ñi ci secteur bi di ay transporteur te ami camion ñu bok ci waye nga jox ko ko mu dem camions transporteur yoyu ñu jox la prix bu baax yow nga camion pour un mois def ci 5 rotations wala 6 rotations. loolu bokkul ci transparence ñu bëgg nag loolu ministère bi leeral ko bu loolu paree ceeb bi nga xam ne bii moom ci boppam jënd nañ ko muy cent mille tonnes ñu wax ñaata commerçant ñoo ko jënd nuñ leen joxe marché bi ba ñoom ñu jënd ko te liñ ko jëndee man buñ ma joxoon xaalis bi lu ko gën a ndaw danaa leen ko jaayee ceeb wàllum scandale foncier bi nga xam ni boobu léegi mi ngi lëmbe xelu Sénégal yi bu jëmee ci ki nga xam ni moo di Barthélémy Dias ak ay ñëñam moom nag ki nga xam ni moo di Madiambal Diagne moom amaloon na si ab taxaw seetlu ginnaaw bi ñu ko invité woon ci benn plateau waaye ki nga xam ni moo di Pierre Atepa Goudiaby moom nag dafa euh, weddi propos yooyu le nga xam ni kii di journaliste boobu la génne woon na ko ci ab euh, article moom nag bi ñu ko invité ci euh, benn plateau télévision ñu bàyyi leen. leen ngeen teewlu reportage El Hadj Mamadou gannaaw caxat-caxatee gu metti gi ñu nemmeekoo ci suuf si nga xam ni moo lalu ci tefes gi ëmb lii di diwaanu ndakaaru jur na fi ay coow ak ay werante yu bari ci diggante lenn ci askan wi ak ñii ko bëgg akimo ba ma waral kii di ma Madiambal Diagne di ab journaliste investigateur maanaam kuy saytu ak càmbar lépp lu jëm ci doxalinu réew mi te soxal askan wi daa dina cay bind ab xabaar jëme ko ci ni ñuy joxe suufu littoral boobule jag jagleel ko ay kilifa ci réew mi wala sax ñi fare bitim réew te dëppoowul ak yoon waaye ginnaaw saga kii di Pierre Atepa Goudiaby di architecte bu mag boobule daal nay génn weddi lii ma Madiambal Diagne wax jëme ko ci suuf si fare fii ci booru géej gi ci diwaanu Ndakaaru waaye kii di Madiambal Diagne daal nay tontu kii di architecte boobu di Pierre Atepa Goudiaby ci biir émission Sen Show bi nga xam ni suñu nattangoo Sen TV dalaloon nañ ko niki talaata bi ñu weesu mu ay firnde leer la ko teg rax ci dolli muy xamal askan wi ñi këram yi ñuy tudd ci alali boppam nu lew domb la ko jënde te kenn mësu koo may benn mètre carré bu gën a tuuti du ci nguuru maître Abdoulaye Wade nguuru président Macky Sall waxi nopp lii ndarkeppe première partie euh, xibaar yooyu la dina doon euh, marche bi nga xam ne ñële ñi ñiy liggéey ci syndicat des travailleurs de la justice ñoom nag nee nañ dañuy organiser benn marche vendredi in ki nga xamale nag moo di El Hadji Aya Boun Diop ak ay collègue am ñoom nag nee nañ dinañ amala ab marche ne dañuy réclamer li nga xam ki nga xam ne euh, le ministre de la justice Malik Sall depuis bi nga xam ni dafa jëlee service mu doon mu nekk le 16 avril 2019 foofa moom nag accordé wu leen benn importance ñoom nag nee nañ dinañu tàmbali seen euh, marche boobu lay jëmal jëmale ko fële ca xam ni moo di ca ex obélisque dem ba fële nga xam ni moo di ca RTS. mbokki internet li na leen indiloon ci seen xibaar xanaa dañuy ànd ak yéen dugg ci ñaareelu partie bi ma ci eh, am nag saa ki nga xam ni moo di Maty Sarr ñu war a waxtaanee li nga xam ni moo di cas importé yi gën a persister fii ci biir Sénégal Maty Sarr na nga def. maa ngi fi Binta dellu di la fay eh, itam dellu di nuyuwaat ñi nga xam ni. Euh, saa su waxtu wi jotee rek ñu ngi ñuy bàyyi xel si biir seen kaddu point sn ngir teewe fi lépp loo xam ni ruusandil ni ki xibaar jëm ci semaine bi rawatina yi si gën a fës. Mati rek ñu gis ne tey ci communiqué bi dafa dañoo gis di nombre cas importés yi dafa bëri trop tey ci samedi bi ñu ngi am 27 cas importés Mati Sarr ban impact la loolu nara am fi ci biir Sénégal ak mesures yi nga xam ni euh, euh, dañ ko allégé. Binta xam nga cas importés yi nag moom chaque fois. bon ci bir semaine bi sax ngay wax setlu na ni leen ci am danaka liko manké 40 40 wul ndax barki demb amon nañ ci 17 euh, tay ñu am ci ñaar fukk ak juroom ñaar fan yi yëpp yaa dégg ay ñaar ak ñett itam ka importé euh, bokk na nak ci liko waral ndax buñu faté ni euh, frontière aérienne yi dañ ko dal di tejé kon avion yi dem ak dik rek dafa fekk mu nekk lo xamni ci ndogol ci ndogol ci ndogolu état bi la wala ci njàppandalu état bi kon euh, mën nga japp ni rek ka euh, importer yi fi fiy dégg rek bokku na ci euh, sénégalais yi nga xamni dañoo tagga tembe won ci gox yu bari ci diwanu aduna bi ñu rapatrier leen dal di leen indi bari na nag ci ñom ño xamantani bu ñëwé dañ leen di mettre en quarantaine suñu paré saytu sen wal wér gi yaram kon ka importer yi ngay dégg daanaka si ñooñu lay ko ñom ñoy dal di delsi dal di amé doomu jangoro bi mu nekk nak bir bo xamantani instant yi binta dafa na indi benen ndax boy xol feebar bi ka communautaire yi yi itam chaque fois mi ngi gën a yokk plus de fukk ak lu taftal ngay dégg saa boo xëyee war cee teg cas contact yi cas importé yi war a ñëwaat dooleeku ci day nekk mbir boo xamante ni kon bu naree continuer à ce rythme day mel ni feebar bi ak Sénégal kon histoire bu xaajagul bay jeex la bintaa nag euh, yi septembre bien sûr waaye mu tombeek cas importé yi di gën a bëri mais tamit vol yi nga xam ni ñuy dugg Sénégal ak di ko génn tamit day gën a bari parce que ñu ngi dégg ni d'ici suupa rek incha allah vol yi nga xam ni séné français yi nekk biir Sénégal ñoom dañ leen di rapatrier ñoom aussi waaye tamit ñi nekk Europe ñoom yore passeport Sénégal dinañ mën a dugg si fii ci Sénégal wa eh, Binta xam nga eh, chaque fois nak li nan ay pression bi parfois da fay metti lol ndax bu fekke ñi nekk ci dëkk bi ñi nekk ci witi sax autant pour moi dal di ciang ci eh, frontière yi ñomi it saa su da ngay dégg ci média yi ñi xatara yi ak di yuuxu naan doomu dëkk bi lan dañ leen wara jël ci ta ñom dëkk bi nekk xam nga fa la fièvre bi presque di gëna bëri ñi xatara xataraayu ne danoo bëgg ñu dal di leen indi ñeneen yi tam ñi nga xam ni danoo demoon peut-être voyage dal di am problème ndax bi ni tëj frontière mu fekk defal leen foofu ñoom itam ñu ne dañoo bëgg a ñibbisi boole kooku ñuy wax waxu reprise des cours loolu moom man chaque fois reprise des cours yi man damay naan Eh, bu ñu sañoon sax dootu ñu ci wax ndax eh, bu mëne nekk rek lay nekk su mënul nekk du mëna a nekk ndax gis nga tay Matam ci eh, ka communautaire yi autant pour moi demb dégg nga ni tam am benen dal dina fay amat tay tam à chaque fois bu faté ni enseignant yi ñu leen jëlé won fi dal di leen yobbu ci biir dëkk yi bari na ci ñom ño xam ne mujjé am feebar bi bari sax ay ka communautaire kon nak day nekk mbir yo xamanteni bu bu ñu xolé condition yoy yépp suñ ko dajalé da ngay xamni carrément fi ba mois de septembre ak rythme bi feebar bi doxee fi Sénégal mom waxuma la reprise des cours sax waye damay ragal li fi ñu jóge won stade initial bi ñu wat fa moy muziri restreindre ta mesure yi nga xam instant yi dafa am ay allègement yu bari ndax euh, boy xol itam demlante beeg dikkalante bi chaque fois moy tax itam feebar bi di dox ndax mom yobul bopam comme nit ñi ñokoy yob nak tay itam geste barrière yi comme ñu koy sakku su bari si ñu doomu adama yi mais ba légui dafa melni comme day tabbi ci nopp ku tax ndax ñu bari ci ñun duñu mesure yi euh, kon ka yi mom bu continuer di am ni moom Sénégal damay ragal fa mu mujjee woon fa mu jógee mu dellu fa ilaa mu dellu sax fu gën a pire mooy maanaam commencé def confinement par zone keroog yaa ñu euh, demaloon fa li nga xam ni moo di ca Parcelles Assainies ngir assister li nga xam moo di distribution des kits alimentaire waaye ñu gis ni dafa commencé juraatu coow ndax gis nañ ko ci mel ni Moustapha Cissé Lo moom muy laajte yenn preuve yi nga xam ni waaw dafa réfutable maanaam dafa war ci mbokk sénégalais yi ñu dégg ko lu si jëm ci wàllum transport bi waaye tamit marché yi nga xam ni ceeb bi ñu ngi ko joxoon indi si ay leeral tey euh, yow en tant que journaliste tey yow mi fa demoon lan nga nu mën a waxal wala lan nga mën a xamal Sénégal militaires yi nga xam ne nekkuñu fa woon keroog ñu mën ko jàpp comme information

ñuy jënd pour dimbalee ko way néew di doole yi ak boole kook itam camion de transport yi nga xamante ni ñoom la ñu déployé woon pour ñu daal di transporter li nga xam ni moom moo nekk aide alimentaire boobu noonu donc plan de résilience économique bi Macky Sall teg ñu xayma ko ci 1000 milliards lu tollook juróom benn fukki milliards ak juróom-ñeent moom lañ jël jagleel ko aide alimentaire bi kon nag wax na dëgg bu heure bilan jotee nan wax xaalis bi fan ak ñan ak ñan lañ ko jox ak lan ak lan lañ ci liggéey bu bi jaar na yoon itam xaalis ba yëpp fa la yem ñu daal di xam taw dëgg la ndax bul fàtte ni mille milliards yooyu noonu du xaalisu mag yi du xaalisu kenn ci ñun xaalisu ñëpp ci ñun la ndax kenn ku nekk la nga am mu bëre mu néew da di koy dem jàppale ji Macky Sall ginnaaw bi mu wootee woon jëm ngir mën a am alal boo xam ne mën na ko jëmmalee force Covid 19 boobu noonu Binta. Euh, euh, dernier point bi ñuy waxtaan ak yow rek ñu leen laaj ban message nga mën a lancer jeunes yi nga xam ni ñoom ñooy dem ci plage yi waaye tamit di jàmmaarloo ñi nga xam ni ñoo di eh, waaye takkader yi ndax gis nañ fi li fi xewoon ay fan fan yi néew waaye tamit gémm ca géejo waaye gis nañ jeunes yi dañ génne dem ca plage ba leen fa waaye takkader yi fekkee mm. eh, Binta yu Mali bu démb la fa xew rawatina fale ci diwaanu amoo siis moom eh, dafa nekk mbir boo xamante ni itam xam nga chaque fois li may wax rek euh, ndaw ñi il faudra ñu am conscience que nii maanaam seen xel màcc jëm ci benn mbir que ni lii ñuy def nii defuñu ko parce que dañoo bëgg tere wa ilaa dañoo bëgg a tere ndax bëgg a tere rek déedéet. adduna bi moo toll tolluwaay boo xamante ne ndaw ndawaan yi ñuy sàggane moo mën a jur ay musiba jur ay jéye yu bëri ndax gis nga tey euh, ci euh, ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci ñeent yi nga dégg tey docteur Aly Waly Diouf daal di koy wax kenn kii mu nga dëkkee fële ca diwaanu Ndiaye njaareem tam ak lawon amoon na lu ëpp juroom ñett fukki tam mais daanu genn kërëm ka communautaire la itam demul dikul mais febab bi dafa ñëw ba ci biir kërëm ko fa di bakkanam kon euh, dafa nek mbir bo xamante euh, moy comme ni ndaw yi di def ni rek bon peut-être asom asymptomatique yi itam liñ ci wax nu mu bëree na ci téeméer bo jël juroom benn fukk euh, kon yow mën ngay dox ak virus bi japp ne dara dalu la amoo doomu jangoro bi nga nek fi ni di dem plage wa ila ngay dem di jaxoso nit ñi xam nga nga ñëw febar bi seen kër yow xalé nga peut-être sa force de défense yi nekk sa yaram mën na la permettre nga mën résister ba dundat mais mag ba nga bayyi fofu foofu nga dik ko jox mom mënu amul chance bi nga am kon dafa nek mbir bo xamni mi ndaw ñi di mag ñi ak kum ci mënti doon ci ñun sénégalais rek ñu xamni acte citoyen dafa bax nit ki bala nga nek fi ni nguur dem bay ak yow doole sax lila war yow en tant que doomu rew da ko téré li tax ñu téré xam nga li ak li mom ñu tere comme na dañuy tere tere dajaloo yi ba tax ñu né plage yi bu fa kenn dem pour entraîner wala dem di fa di jaxasoog say morom nanu set ngir yalla rek ñu wàccoog dogal yoy ndax jamaalo bu ñuy jamaalo force de l'ordre yi way tak der di du leen jural dara ndax ñoo ñu si arrêté tay jilé ni buñ ci kuñ ci ré itam sa papa moy son wala sa yaay son wala say mbokk son rek tay itam du am benn ki ni ma ngi jégalu do ngay mujjé ñom li ngay mujjé nak chaque fois soko ko di njëkkee binta mom moy Mati Sarr ñu ngi lay jajeufal bu baax ci and bi ngay and ak ñun chaque week-end ñu bayila rek nga tagato ko mbokk internet yi ma lay jaajëfal Binta bu baax a baax chaque fois si occasion bi may may nii pour may euh, chaque fois di la mën a euh, toog di waxtaan ak yow di mën a waxtaane waale itam suñu mbokk internet yi rawatina ci xibaar nga xam ne chaque fois mooy gën a fës si biir semaine bi kon maa ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal itam bu baax a baax suñu mbokk internet yi nga xam ni chaque fois ñoom it ñu ngi ñuy bàyyi xel si biir seen cadre point sn di leen jox dig daje ba ay bés bi di yow incha allahu rabbi yi internet di leen indiloon ci seen actualité la semaine xanaa ñu leen di jox dig daje fii ak semaine prochaine ñuy de remercier ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci régie bi ku ci mel ni Bokar Dieye cantàngërëm ñenn laan ba semaine prochaine incha allah